الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين mbokk yi ñu ngi sant suñu boroom subhanahu wa taala ci bim ñu wër sëgalaatee ñu mën a dellu si ci suñu téere bi di risaala bu ibn abi zayd al qayrawaani gannaaw ba nga xamee ni nii am na ñaari dimanche yoo xam ni mënuñu ko woon a taxawee di sant suñu boroom subhanahu wa taala mi ñuy delloo suñu wér ci di ko ñaan musaafaral ñu bépp julit ñi ngi nekkoon ci fanweereelu bunt bi ak juróom-ñeent ci téere bi muy baabun fil faraid bunt buy jàngale wàllu miiras miiras moomu nga xam ni rasul sallallahu alayhi wa sallam nee na mooy xam-xam bi jëkk réer ci xam-xamul islaam ba axiru zaman ay nit dañu am problème ci miiras duñu am kenn ku leen ca mën a teqali loolu moo tax ba bu la yàlla wërsëgalee nga bokk ci ñuy topp dars yi nga war ci bàyyi xel alhamdulillah suñu boroom may nañu ay moyen léegi yoo xam ni dars boo dégg mën nga ko toppaat ay yooni yoon ba mën koo gën a xam jàkk ji am na ay groupe whatsapp yoo xam ne boo ca bokkee dars bi da nga ko jot di ko mën a garder am na it ay telegram yoo xam ni dars ya dana ca mën a nekk lu yàgg-yàgg su doonte ne ni jokkoo nga ak 77 814 42 20 daañ la mën a dugal ci loolu ngire heure boo déggee bind bi it nga mën di ko arrière di ko dégluwaat bu baax a baax a baax maadaama ñaari dimanche ngi nii ci biñ gëjee jël bind dañu xam ne ñu ngi daloon ci bindu ci miiras miiras suñu borom moo ko séddaleel boppam dañu xam ni tey jii bu doon dañuy xool baay baay bu dee doomam daa faatu ca bi muy faatu bàyyiwul doom bàyyiwul ab sët dañ naan baay yow yaayu sa doom ji bu ne mi ngi dund nañ jël alal ji def ko ñetti xaaj baay jëlal ñaari jox yaay benn su dee yaayam dundul alal ji yépp yow bàyyi kese yaa ko moom loolu mi ngi noonu amma bu doon dafa bàyyi doom dañ naan bàyyi kon léegi yow au départ da ngay jël juróom benneelu alal ji muy un sixième de sulus di xaar nag bu leneen desee ñu dolli la ko loolu mooy mbiru bàyyi amma bu dee yaay su doom ñoom di faatu bàyyiwul doom day jël ceeru alal ja moo ko moom allahuma lu dul bu bàyyi woon ay frère dañ naan yaay sa ceer bi kat léegi dañ koy xaaj un sixième bi ngay moom loolee te des su dee bàyyi mi ngi doon dund dañ koy dolli bàyyi ko defee frère yi moom dañ ko xañ seen yaay ci duñ ko jël loolu moom mooy wàllu la nga xam ne mooy yaay loolu bokkoon na ci bindi dimanche yi la ca gën a am solo luñ jàngoon bokkoon na luñ jàngoon it waa ji faatu bàyyi jëkkër su boobaa ñaari xaal moo mën a nekk mooy bàyyi na jëkkër ci amul doom ñu ne kon lépp loo xam ne nii am na ko nañ ko xaaj ci digg ba jëkkër ja moo ko moom am na doom ñu ne kon nañ ko xaaj ñeenti xaaj benn xaaj ba jëkkër jaa ko moom kii moom daa faatu bàyyi soxna moom it ñaari xaal moo mën a nekk bàyyi na soxna ci amul doom ñu ne kon nañ xaaj alal ji ñeenti xaaj jël benn xaaj ba jox ko soxna si bàyyi na doom wala sët ñu ne kon nañ xaaj alal ji juróom-ñetti xaaj benn xaaj ba ñu jox ko soxna si bu dee ay soxna it dañ leen koy en séddale loolu mbokk mooy la gën a am solo ci li ñu jàngoon bi ñu fi mujjee ci dimanche yi passé bu dee tey dañuy jël bind ba bees boo yoree la nga xam ne mooy traduction bu xonq bi yaa ngi ci page 107 bi bu dee yaa ngi ci samaru daani nga xool page 632 ci ligne bu njëkk bi day wax ne wa ibnul ibni kal ibni fi adamihi mi ngi noonu samarodani 632 ci ligne bu njëkk ba wa ibnul ibni kal ibn fi adamihi fi ma yarisu wa yaxjubu bu dee bokk nañ ko gis kon day wax ne wa ibnul ibni la nga xam ne moom mooy doom boo sët boo xam ne ma nga jóge ca doom bu góor kooku day kal ibni moog doom bu góor ñoo yem ci miraas su dee ne baayam daa faat fii adamihi bu dee ne baay nekku fa fii ma yarisu ca la nga xam ne dana ko doon wa yaxjubu ak ña nga xam ne dana leen fay fekk loolu mbokk boo ko doon xool day wax ne tey jii nit ki daa fa bàyyiwul doom mi ngi noonu bàyyiwul doom bu góor waaye bàyyi na la nga xam ne mooy sët bu góor boo xam ni doomam bu góor a ko jur ku mel noonu li baayam waroon a doon loolu lay doon ña nga xam ne it bu bàyyi doon dund du ñu ànd ak moom doon ñoom it duñu doon kii faatu tey bàyyi doom bu góor mboole mi frère am mboole mi sœur am kenn du ci doon naka noonu nit ki faatu bàyyi sët bu góor boo xam ne doomam ju góor moo ko jur mboole mi frère am kenn du ci doon loolu lay wax ci acte boobe soo jàngaatee mu ne wa miraasul binti lwaahida an nisf la muy donn benn jigéen kese ca baayam wala ca yaayam moom mooy genn wàllu alal ja walisnatayni sulusaan su dee ñaar lañu wala lu ëpp loolu dañuy donn ñaari ceeru alal ja alal ja bu doon six mille quatre mille ñoo ko moom fa in kasurna lam lam yazidna lam lam yuzadna alal sulusayni su dee ne dañoo ëpp ñaarit kenn du paase ak ñoom la nga xam ne moom mooy deux tiers yooyu bu doon alal ja daa nekk six mille quatre mille lay doon wa ibnatul ibni kalbint mu ni doomu bu jigéen boo xam ne doom bu góor a ko jur kalbinti moo doom boo xam ne nii kadee moo ko jur ñoo yem iza lam takun bint su dee doom bu jigéen amu fa wa kazalika banatuhu naka noonu it doom yu jigéen ya sa doom bu góor jur kal banaat moog doom ya nga xam ne ka faatu jur nañ ko fii adamil banaat su boobaa da ngay gis ni ñoom ñoo yem ci miiras kon mbokk fii day wax miiraasu kii daa faatu bi muy faatu bàyyiwul lu dul benn doom bu jigéen la bàyyi ci li mu jur ku mel nii dañu naan genn wàll alal ji moom lañ koy jox muy wàllam su doonte ne dañoo nekk ñaari doom yu jigéen wala ñaar fukki doom yu jigéen ñoo yem alal ji seen bàyyi bàyyi dañ koy xaaj ñetti xaaj ñaari xaaj ya ñoom lañ leen di jox su dee ne waa ji bi muy faatu bàyyiwul doom ju jigéen waaye bàyyi na sët bu jigéen boo xam ni doomam ju góor jafaatu moo ko jur su boobaa sët yu jigéen yooyee lañuy indi taxawal leen palaasu doom yu jigéen yamu jur bu ko defee bu dee kenn la moomam génn walla alal ja su dee ñaar la walla ñaar fukk ci yem ñoom ñoo moom la nga xam ne mooy deux ceeru alal ja ba alal ja doon juróom benn ñoo moom ñeenti ya soo jëlee bind bi ci topp mu ne fa in kaanat ibnatun wa ibnatu ibnin su dee ne nag ba waa ji faatu daa bàyyi benn doom bu jigéen ak benn sët bu jigéen bu doomam bu góor jur falil ibnati nisf kon doom ju jigéen ba mooy jël jël wàllu alal ja wali ibnati li ibni sudus la nga xam ne mooy sët bu jigéen ba jël sixième alal ja tamaama sulusayni muy mottali la nga xam ne mooy deux tiers ya wa in kasurat banaatul ibn doonte ne bari woon na sët yu jóge ca doom ju góor lam yuzatna ala zalika sudus kenn du leen dolli ci sudus boobu dara mi ngi noonu in lam yakun ma'ahunna zakarun wa ma baqiya lil asaba su dee amuñu benn góor bu ànd ak ñoom la des ña koy donn mooy gaño ga mbokk fii kon day expliquer ci ne nit ki dafa faatu wax nañu sànq ni bàyyi na benn doom bu jigéen alal ji yépp genn wàll ga moo ko moom ñaari doomi jigéen la bàyyi deux ceeru alal ji ñoo ko moom léegi nag kii moom daa faatu bàyyiwul lu dul doom bu jigéen bu mu jur waaye am na doom yu góor yoo xam ni am nañu ay doom yu jigéen su boobaa lu ñuy def mooy doom bu jigéen bi mu jur moom mooy jël genn wàllu alal ci ñu muy masalan six mille la trois mille yi doom bu jigéen bi moo ko jur moo ko moom mooy anisf léegi nag ñaari doomu jigéen ñii bu doon doomu jigéen yi ñaar lañu dañuy jël deux tiers alal ji ca kenn rek la kon kenn ki yow jëlal genn wàll ñu jël nag la nga xam ne mooy un sixième bi mottali deux tiers yi masalan juróom benn cër la woon jox nañ doom bu jigéen bi ñetti cër jël benn cër buñ ko ca dolli woon muy ñeenti cër day représenter deux cëru alal ci kon mboolem sët yu jigéen yi ñoom la ñuy jox cër boobu képp koo xam ne faatu na bàyyi doom bu jigéen ak sët yu jigéen doom bu jigéen ba moo moom genn wàllu alal ja sët yu sët yu jigéen ya bu dee kenn lañu wala ñaar fukk ñoo yem ñoom ñooy jël un sixième alal ja la ca des ñu jox ko ña nga xam ne ñoo sës ci góor yuy doon loolu nag mu ne xanaa lu dul ñoom ñu am ku leen góoral te loolu dana ko détaillé ci kanam su doon dañoo am sët yu jigéen sët yu jigéen ya dañoo amoon benn frère su boobaa dañu naan yow doom bu jigéen bi jëlal sa genn wàllu alal genn wàllu alal ji ci des ñu jox ko sudiyee waaye bu boobaa dañ koy séddale góor ñaar jigéen benn loolu mooy la nga xam ne moom la jàngale noonu ci doom yu jigéen yoo xam ne dañoo ànd ak la nga xam ne mooy sët bu jigéen bu dee da ngay jël beneen bind mu ne wa in kanat al banatu isnatayni lam yakun li banati al ibni shay'un su doonte na nag waaja ba muy faatu daa bàyyi ñaari doom yu jigéen ah su boobaa sët yu jigéen ñi duñu am dara ci miraas ma illa an yakuna ma'ahunna akhun xanaa lu dul dafa nekk ànd ak ñoom frère fa yakuna ma baqiya baynahunna la des nekk seen diggante wa baynahu ak diggante ku góor kooke li zakar li zakari mislu hazil unsayayni góor gu nekk ñu jox ko cëri la nga xam ne mooy ñaari jigéen wa kazalika ida kaana zalika zakr naka noonu it bu doon tere dafa nekk ku góor kooke taxtahunna nekk gën a suufe sët yu jigéen ya kaana zalika baynahu wa baynahunna kazalik naka noonu it dañ leen koy séddale ci seen diggante mi ngi noonu ca wàllu googe mbokk kon fii day indi la nga xame ne nii mooy kaa kii daa faatu bàyyi ñaari doom yu jigéen su boobaa sëtam yu jigéen ya dootuñu donn dara sëtam yu jigéen ya dootuñu donn dara jàng nga sànq ne bu dee benn doom bu jigéen la donn la bàyyi sët yu jigéen ña ñooy donn un sixième ba waaye bu dee bàyyi na ñaari doom yu jigéen sët yu jigéen ña duñu donn dara xanaa lu dul ci kaa sët yooyee am frère boo xam ni ñoo moom ñoo bokk ni ñuy bokkee ci seen maam walla am koo xam ne nii day nekk seen doomu frère bu leen gën a suufe waaye su boobaa it du tee dañ leen koy séddale desit ba góor ñaar jigéen la nga xam ne mooy benn loolu mooy aju ci wàllu googe kon mën ngaa tënk ci ne ay sët yu jigéen ki faatu bu bàyyee ñaari doomi jigéen ñoom pare nañ ci miraas lu dul dañoo am frère boo xam ne moo leen góoral am maa nag bu doon seen maam bàyyiwul lu dul benn doom bu jigéen ah su boobaa ñoom dañuy am wàll ci miraas bi te mooy un sixième ba loolu ñoom ñooy ña nga xam ne ñoo ko moom boo jëlee beneen bind mu ni wa kazalika ida kaana zalika zakr taxtahunna bu doonte ne ku góor kookee daa nekk ci seen suuf kaana zalika baynahu wa baynahunna kazalik day nekk seen diggante ak ñu jigéen ñi lakk noonu wa kazalika law warisa banatul ibni ma al ibnati sudus su doon dañoo am kaa boo xam ni ñee di sëb yu jigéen ñi dañoo ànd ak do doom bu jigéen ba donn seen sixième waaye wa taxtahunna banaatu ibnin mu nekk ca seen suuf nag yeneen sët yu jigéen yu leen gën a suufee maahunna aw taxtahunna zakarun mu nekk ak ñoom wala gën leen a suufe góor kaana zalika baynahu wa bayna axawaatihi su boobaa day nekk digganteem ak sëram aw man fawqahu man fawqahu min amaatihi wala ña ko féete kaw ci ay bàjjanam wala yadxulu fi zalika man daxala fi sulisayni min banaati al ibn te du dugg ci loolu ña duggoon ca deux tiers ya ca doomi ña nga xame ne nii ay doomi doomi góor lañu li may expliqué fii mbokk mooy kii nga xam ne dafa bàyyi doom bu jigéen benn doom bu jigéen la bàyyi léegi bàyyi na masalan six mille francs doom bu jigéen yi moom trois mille yi mu am ay sët yu jigéen sët yu jigéen yooyu dañuy jël mille francs muy un sixième ñu jox leen ko mooy seen wàll ba tey day des ñaata deux mille la nga xamee ne mooy sët yi gën a suufe gën a sori seen maam bu dee ay jigéeni kese lañu ñoom du ñu am ci miraas bi dara waaye bu dee ni am nañ frère boo xam ni ñoo bokk ak moom daraja ci liñ bokkee ak seen maam wala sax ñoom beneen sët boo xam ne moo leen gën a soni maam waaye góor la ñaari junni yooyee des dañ leen koy séddale góor ñaar jigéen benn loolu it liñ ciy déggee mooy jigéen dana donn ci ay kaa su dee daa ànd ak góor daañ ko xañ miraas su dee góor nekku fa te loolu it gannaaw atte bi dana ñëw ci atte la nga xam ne mooy atte doomu baay lii mbokk da ngay gis ne mooy la gën a tënku ci ki nga xam ne dafa faatu bàyyiwul ay doom yu góor moo bàyyi ay doom yu jigéen ak ay sët yu jigéen naka la seen miraas di tëddee mooy bunt bi nga xam ne moom lañ jot a jëkk a jàngi nii su doon te ni nii am na ci kenn koo xam ne am na passage bu ko leerul wala lu mu doon laaj ci wàll gi insha allah waaw bismillah naam bismillah naam waaw waaleykum salaam un tiers yi ci des loole day dem ca ñeneen ñi nga xam ne ñoo war a donn loolu la ñuy tudde asaba su boobaa dañ koy delloo ca góor ña gën a jege nga doon ay frère lañu wala ay bàyyi tax lañu ala kulli xaal islam dana jox leen ku nekk cëram li des ñu xool góor ga gën a jege ci mbokk ñooñu ñoo ko yeeyoo su dee ne am na jigéen ñu bokk ak ñoom daraja ñu séddoo ko seen diggante góor ñaar jigéen benn loolu atte la buy ñëw gannaaw ba insha allah naam waaw su dee ne naam bismillah naam naam waaw loolu ay mirage général la dañ doon wax ci lii nga xam ne dañ ko jotu tënk jàng ko ci ki faatu bàyyiwu lu dul ay doom yu jigéen kese bàyyiwu lu dul ay doom yu jigéen kese ak ay sët yu jigéen loolee lañ doon wax ne ndax am na ci koo xam ne am na lu ko ci desee leer gannaaw ba dañuy jël yeneen bind suñ demee ba jeexal nag suñu amee ay yeneen laaj général ñu doog ko cee dugal mais pour bëgg liñ jot a jàng quand même leer ci boppu nit ñi moo tax ñuy ubbi bunt bi naam waaw bismillah waaw waaw dama dama jàpp ne ba tey ba tey ba tey comprendre guñu ñi ngi wax ci ki nga xam ni bi muy gaañu bàyyiwul doom bu góor ay sët yu jigéen rek la bàyyi ak ay doom yu jigéen ñoom lañ doon expliquer seen miraas ni muy demee amma bu dee beneen miraas boo xam ne doom da caa am bu góor loolu dana ñëw ci kanam insha allah waaw naam bismillah naam naam waaw naam waaw noonu lay demee mooy dañuy xaaj alal ji juróom benn xaaj ñoom ñëpp ñooy jëlandoo alal ji dafa am miraas base yuñ koy séddalee six douze vingt quatre su dee dafa yem rek ci ay nisfu ak i surus su boobaa alal ji juróom benn ciir lañ koy def doom bu jigéen bi mooy jël genn wàll kon mooy trois doom yi sëdd yu jigéen yi jël liy mottali deux tiers yi muy un loolu lay demee bu ko defee dañuy jox ñi jox ki trois mille jox ki mille bu doon ñaar fukki it mille rek lañ leen di jox moom noonu lay demee lu dul ci benn cas rek mooy ñoom ñu am frère mooy sët yu jigéen ñi ànd ak frère su boobaa nag moom xale bu kii doom bu jigéen bi boo jëlee genn wàllu alalam la ca des sët yu jigéen ñi ak seen frère ñoo koy séddoo góor ñaar jigéen benn wax naa la sànq ne bu doon dafa bàyyi ñaari doom yu jigéen sët yu jigéen sët yu jigéen kese nekk fa sët yu jigéen yooyu duñ doonu dara amaa nag bu ñu amee frère bu ñu àndal su boobaa ñaari doom yu jigéen yi ñooy jël deux ceeru alal ji masalan six mille la woon ñoom ñoo moom quatre mille yi deux mille yi des ñu xool sëdd yu góor yi ak yu jigéen yi sëddale leen ko góor ñaar jigéen benn naam ci wàllu ko naam bismillah naam mboolem li ñuy wax ci ndono gi ndey ak bàyyi ci yem ndey ak bàyyi ci yem mooy bàyyi bi dee bàyyi benn doom bu jigéen wala yaay ji dee bàyyi doom bu jigéen bàyyi bi dee bàyyi góor ak jigéen yaay ji dee bàyyi góor ak jigéen ni ñuy miraasa baay la ñuy miraasa yaay donte ne ni bokk na fitna boo xam ne dafa lënt ñu bare bare bari wallahi dimanche passé dimanche passé rek benn mbokk mi ngi ma koy wax ci benn miraas boo xam ne nii moom dafa bokkoon ci pilier yi mu ni ku jigéen ki moo faatu bàyyi ay doom mu ne laaj nañ benn imaam mu ne waaw góor ak jigéen ñoo yem ci miraas bi wax ko loolu musiba mënta passé loolu yaa ngi dégg parce que dafay am lu ñuy jaawale loo xam ne dañ ko jànge ci kanam muy miraasu doomi ndey bokkul ak miraasu ndey miraas yu doomi ndey mooy kii bi muy dee bàyyiwul doom bàyyi ñu nag ay frère ki sœur bu ko defee frère ak sœur yooyu bu dee seen ba bu dee bàyyi bàyyi waaju dundul dañ naan frère ak sœur yooyu yéen a yem ci miraas bi maadaama yéen ndey rek ngeen bokk yéen a yem ci miraas bi li ñuy jox góor la ñuy jox jigéen bokkul ak nag ñoo xam ne seen ndey bopp moo dee su boobaa góor ñaar jigéen benn mi ngi noonu wallahu subhanahu wa taala alam waaw yaakaar naa kon mën nañ jël beneen bind bu bees kon day wax rek ci ne wa mirasul uxti shaqiqa an nisfu la nga xam ne dana ko donn sœur bi bokk ak kafaatu ndey ak baay mooy genn wàllu alal ja walisnatayni fa saaidan sulusaan su dee ñaar lañu nag wala lu romb ñaar ñoom ñooy jël la nga xam ni mooy deux ceeru alal ja fa in kaanu ixwat ixwatun wa axawaat su dee dañoo nekkoon la nga xam ne nii moom mooy ay frère ak sœur shaqaa'iq ñu nekk bokk ndeeg bay aw li ab wala ñu bokk bay kese fal maalu baynahum alal ji dañ koy def ci seen diggante li zakari mislu hazil unsayayn góor gu nañu jox ko ciru ñaari jigéen xallu aw kasuru aw kasuru néew nañu wala bari nañu wala aqawaatu ma al banaat naam wala ñu xool loolu ba pare day wax ci ne waa ji daa faatu bàyyiwul doom lan la bàyyi mooy la nga xamee ne nii ay sœur lañu ay sœur la bàyyi ñoo xam ne ñoo bokk ndey ak baay mi ngi noonu sœur la bàyyi bu mu bokkal ndey ak baay su boobaa sœur bi moo moom génnoo la alalam nit ki faatu na bàyyiwu fii la nga xam ne mooy baay bàyyi fi doom benn sœur dong dong la bàyyi suñu borom mu ne genn wàllu alal ja moo ko sœur baa ko moom gis ngeen loolu bu doon tene ne sœur ba moo faatu su boobaa alal ja yépp frère baa ko moom mu ne nag bu doon dañoo nekk ñaari sœur wala ñu ëpp ñaari sœur waa ji faatu lan la bàyyi ay sœuram su boobaa dañ naan alal ji nañ ko xaaj juróom benn xaaj ñeenti xaaj yi sœur yi ñoo ko moom loolu looy gis foofu mooy ay sœur dañuy donn ni doom yu jigéen di donne bu fa doom yu jigéen yi nekkoon sœur yooyu du ñu donn xanaa lu dul ci kaa boo xamee ni nii dana ñëw ci kanam su doonte ne ne kon loolu la ñuy gis ci loolu amma nag bu dee waa ji daa faatu wala soxna si daa faatu bàyyi ay frère ak i sœur su boobaa frère ak sœur yooyee bu dee ñoo bokk ndey ak bàyyi dañ leen di séddale góor ñaar jigéen benn su dee ñum bokkal ndey ak bàyyi nekkuñu fa ñum bokkal bàyyi rek a fa nekk ay góor ak jigéen dañ leen koy séddale góor ñaar jigéen benn waaye gis nga fi indiwul wàllu doomi ndey ndax doomi ndey mi ngi ñëw ci kanam loolee kon lay wax ca ca wàllu googee bi mu paree ci loolu boo jëlaati téere bi nga jàng mu ne wal axawaatu ma al banaat soo jëlee nag la nga xam ne mooy sœur ya su dee dañoo ànd ak doom bu jigéen kal asaba ñoom dañuy mel ni géño góor place góor la ñuy taxaw asabatu lahunna dañuy nekk géño ñeel leen yaris na ma fad ma fadala anhunna dañuy donn la des ci ñoom wala yurba lahunna te duñ leen dolli duñ leen cëral ab cër ñeel leen maahunna duñ am cër ànd ak ñoom waaye la des la ñuy donn mi ngi noonu loolu mu ne nag wala miraasa li ixwatin wal aqawaat ma al ab nañu xam ne frère ya nag ak sœur ya duñu donn féeg bàyyi ngi dund wala ma al walad zakar duñu donn bu dee doom bu góor am na aw ma al walad walad duñu don nit bu dee ne la nga xamee ne nii mooy sët bu góor am na ba ko kon fii day wax ci waa ji nga xam ne bi mu faatoo bàyyiwul lu dul ay doom yu jigéen kese bàyyiwul lu dul doom yu jigéen kese waaye bàyyi na la nga xamee ne nii moom mooy sœur bu mu bokkal ndey ak bay su boobaa dañuy xool doom bu jigéen bi kese genn wala alal jëlee moom genn wala alal ji des nuñ koy def sœur bi mu bokkal ndey ak baay lañ koy jox bàyyi woon ne ñaari doom yu jigéen wala ñaari fukki doom yu jigéen kon deux tiers alal ji lañ leen di jox masalan juróom benn junni la kon ñeenti junni yi la ñuy jox doom yu jigéen yi la ca des sëram boobu mu bokkal ndey ak baay wala sœur bu mbokkal ndey ak baay nekk fa waaye am na sœur bu mbokkal baay su boobaa day taxaw taxawaayu góor li des ci alal ji moo koy jël loolu kon moo aju ci miiraasu doom yi jigéen su dee dañoo ànd daje ak sœur ca la nga xamee ni nii moom mooy seen miiraas dañuy jël desitu alal ji yépp loolu lay wax ci wàllu googe mu safaanoo ak bind bi njëkk a jël mu la doon jàngal miiraasu doom yu jigéen yoo xam ne dañoo dajeeg sët yu jigéen fii nag moom doom yu jigéen la yu dajeeg sœur bu ñu bokkal ndey ak baay wala bu ñu bokkal la nga xamee ne nii mooy baay amma ñoom bokkal ndey moom bu doom amee rek dégagé nañ leen nit ki bu dee dafa faatu ndey rek ngeen bokk bàyyi na doom góor wala jigéen yow moom dégagé nañ la bokkatuloo amma bu dee bàyyi ngeen bokk wala ngeen bokk ndey ak bàyyi su boobaa dañuy xool doom bu góor am na bokkatuloo bu doom bu jigéen amee kese rek su boobaa yow da ngay donn desitu alal ja na doon góor nga wala jigéen nga kenn ngeen wala mbooloo ngeen loolu lay wax ci wàllu googee su dee nii da ngay jël beneen bind mu ne wal ixwatu lil ab su dee dañuy xool miraasu frère yi nga bokkal baay fi adami shaqaiq su dee ne ña nga bokkal ndeeg baay kenn nekku fa ka shaqaiq dañ leen di considérer ñu ñu bokkal ndeeg baay zukurihim wa inasihim ña cay góor ak ña cay jigéen ñépp fa in kaanat uxtun shaqiqa su dee ne nag waa ji daa bàyyi benn sœur bu mbokkal ndégg bay kese wa uxtun ak beneen sœur aw axawaat wala yeneen sœur lil ab ci loo xam ne bàyyi lañ bokk fa nisfu li shaqiqa su boobaa la nga xam ne mooy génnalu alal ja sœur ba mu bokkal ndéeg bàyyi moo koy moom wa liman baqiya min al axawaati lil abdi sudus ña des nga xam ne bàyyi rek la bokk ak moom ñooñu sixième alal ja lañ leen di jox walaw kaanata shaqiqatayn su doon te ne nag waa ji ba muy bàyyi bàyyi na ñaari sër yu mbokkoon déeg bàyyi lam yakun li axawaati lil abdi shay'un su boobaa sër yam bokkal bàyyi du ñu donn dara illa an yakuna ma'ahunna zakarun xanaa lu dul day ànd ak ñoom benn frère fa yaxuz fa yaxuzuuna ma baqiya ñu jël la des ci alal ja li zakari mislu hazil unsayayni mooy góor a jël cëru ñaari jigéen mi ngi noonu mbokk kon fii day indi miiraasu waa ji faatu bi muy faatu amul kum bokkal ndey ak bàyyi lan la bàyyi mooy sœur yoo xam ni bàyyi kese lañ bokk su boobaa dañuy xool lañ waroon a jox kañ bokkal ndey ak bàyyi la ñuy jox sœur bu mu bokkal bàyyi ca mooy kenn la genn walla alal ji moo ko moom ñaar lañu walla ñaar fukk deux tiers alal ji ñoo ko moom mu am nag beneen cas kii bi muy gaañu benn sœur la bàyyi bu mu bokkal ndey ak bàyyi ak benn sœur bu mu bokkal bàyyi kese su boobaa dañu naan sœur bi mu bokkal ndey ak bàyyi genn la alal ji yaa ko moom léegi nag sœur bi mu bokkal baay wala sœur yam bokkal baay dañuy jël benn cër jox leen bu ko defee muy mottali deux tiers yi nga xam ne bu doon sœur yi ñaar lañu dañ koy doon loolee cër boobu lañ leen di jox masalan juróom benn junni la waa ji bàyyi bàyyi benn sœur bu mu bokkal ndey ak baay sœur bu mu bokkal baay wala ñaar fukk sœur yu mu bokkal baay ki mu bokkal ndey ak baay li ñuy jox ñetti junni yi ñim bokkal bàyyi kese ñu jox leen benn junni amma bu dee bi muy faatu daa bàyyi ñaari sœur yum bokkal ndey ak bàyyi su boobaa sœur yum bokkal bàyyi dootuñu doon dara xanaa lu dul ñoom ñu am frère boo xamee ni nii dañu koy donn desitu alal ja su boobaa dañu naan yéen ñaari sœur yi bokk ak ki faatu ndey ak bàyyi alal jëkkat juróom benn junni la ñeenti junni yi yéen ko moom yéen sër yi mu bokkal baay su ngeen amul woon frère day du ngeen donn dara waaye masalan am ngeen frère bu doon benn sœur la ak benn frère dañuy jox ku nekk ci ku góor ko ñaari cër jox ko jigéen ko benn cër noonu la ñuy séddalee desutu miraas ba nga xam ne dafa aju ci ki ba faatu ca bàyyiwul benn doom xanaa bàyyiwul lu dul la nga xamee ni nii rek moom mooy ay ay frère muy am loo xam ni dana ko jàngale ci kanam waaye képp koo xam ne dafa faatu mu bàyyi frère boo xam ne moom la ñoo bokk ndey ak bàyyi nañu xam ne doomu bàyyi moom dootuñu nekkati di doon na ci amma bu dee bàyyiwul frère bu mu bokkoon ndey ak bàyyi bàyyi la nga xam ne mooy ay sœur kese looloo tax ñu indil la atteb la nga xam ne moo aju ci wàllu doomu bay yi loolu mi ngi noonu kon ñu jël suñ bind bu mujj rek day wax ni wa miiraasul uxti lil umm su dee miiraasu sœur boo xam ne ndey rek la ngeen bokk wala ax lil umm ak frère boo xam ne ndey rek ngeen bokk sawaun ñoom ñoo yem ci miiraas ca mooy ku nekk sudus lay am li kulli waxidin képp ci ñoom un sixième lay am wa in kasaru bu ñuy doonee ñoo xam ne ñu bari lañ nag fa sulusu ceeru alal ja lañ leen di jox baynahunna ñu séddoo ko azakuru wal unsa fihi sawaun góor ak jigéen doon lu ci yemoo wa yaxjubuhum anil miras dana leen fekk nag ba ñoom duñu donn dara al walad heure bu doom ami wa banuuhu ak doomi doom wal abbu bu dee bàyyi day dund wal jaddu lil abbu bu dee maam ju góor mi ngi dundit mboolem ñoom bokkaloon day kese dañ leen di dégager ci miras ba kon mbokk comme niñ ko waxe woon ci biir question yi lii moo indi lënt ci ñu bari di wax ci miras ci xamuñu ci dara te may dañuy jàpp rek ne ay doomi ndey daal bu seen ndey deyee dañuy yem ci miras bi déedéet mbokk julit doomi ndey buñ ñee ay doomi ndey mooy ñoo xam ne ndey la ñu bokk am doomi baay ñi nga xam ne dañoo doon bokk baay am ñoo xam ne dañoo bokk ndey ak baay su ko defee képp koo xam ne dafa faatu bàyyiwul doom bàyyiwul baay waaye bàyyi na ñoo xam ne ñoo bokk ndey ñooñee ñaar lañu dañuy jox ki un sixième jox ki un sixième kenn la moom kese dañ ko jox un sixième bu dee mbooloo lañu dañuy jël ceeru alal ji ceeru alal ji séddale leen ko seen diggante buñ doon ñaar fukkit juróomi góor ak juróom-ñaari jigéen qu'importe dañ leen ko yemele ñoo ci yem képp lu tax ki faatu ndey rek lañ bokk ak moom loolu yi la ñuy wax ci wàllu googee mu ne nag loolu day am parce que waa ji bàyyiwul doom waa ji bàyyiwul la nga xam ne nii moom mooy bàyyi kon mbokk loolu ab tënk la ci bind bi ñu waroon a jël tey ñu ngi ñaax mbokk yi ñu dégluwaat ko nànk-nànk ci audio yi ba mën ko comprendre bu baax di ñaan borom bi subhanahu wa taala yal nañu yàlla wërsëgal lépp lum ñuy wërsëgal mu nekk luy jëriñ suñu njaboot suñu gannaaw yal nañu yàlla musal ci fitna di am lenn lu ñu bàyyal suñu njaboot gannaaw wa sallallahu wa sallama ala nabina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain doom bu góor bu xisee ba am kenn du donn ànd ak moom lu dul soxna wala baay wala yaay su dee ni soxna am amul yaay amul baay amul doom bu góor nekk fa sëram rek la mën a siddool alal ja góor ñaar jigéen benn waaye doom bu góor moom bu xisee ba am day dégager mboolem ñi sësoon ci waa ji ñépp wallahu aalam naam mbokk bi waaw wala kulli xaal bu deente ne ne waa ji dafa bàyyi yaay ak i doom su boobaa yaay ak soxna rek ñoom ñooy doon soxna si moom day doon juróom-ñetteelu alal ji yaay ji day doon sixième alal ji loolee da ngay gis ne moom mooy nekk cosaan la ca des doom yi góor ya ñooy jël ñaar doom yi jigéen yi jël benn mi nga noonu wallahu subhanahu wa taala aalam naam naam bismillah naam waaleykum assalam wa ndax waaw naam naam bokk na règle ci miraas doo donn nit koo xamee ni nii am na ko góor ko dox sa diggante ak moom képp koo xam ne am na ko dox sa diggante kadee di ko donn yow mi nga xam ne da nga ko gën a sori jóge ci moom do donn déedéet bu kenn doon ni ñoom jur dootuñu donnati su ko defee ay sët moom bu ñu leen di wax rek daa fekk ne doom nekku fa doom yi jigéen yooyu parce que seen bàyyi daa dee waaye bu seen bàyyi doon dund kenn du leen tudd mi ngi noonu wallahu subhanahu wa taala alam te it ñu bàyyi xelit ni ñu ngi wax sët yu jigéen yu jóge ci doom bu góor amma sët yu jigéen yu jóge ci doom yu jigéen ñooñu duñu doon sët yu jigéen yu jóge ci doom yu góor ñooy doon wallahu subhanahu wa taala alam naam naam bismillah naam kan loolu bari na ki mën a jël alal ji yëpp bokk na ca bàyyi su dee ne bàyyi rek moo fa nekk bu dee jël alal ji yëpp frère bu dee ne kii dafa faatu tey jii bàyyi fi lu dul benn frère boo koy su boobaa day jël alal ji yëpp doom day jël alal ji yëpp loole kon da ngay gis ne bari na ay cas yoo xam ne nii ka fa sës day jël alal ji yëpp ca mooy bàyyi frère doom sët bu góor ñii ñëpp da ngay gis dañuy jël alal ji yëpp mi nga noonu amma bu dee ñeneen ñi nag dañu am ay cër masalan jamais yaay du jël alal yëpp jamais jëkkër du jël alal yëpp ila axiri ila axiri waaye daal baay frère doom bu góor sët bu góor ñii ñëpp kaa mën na taxaw boo xam ne alal yëpp ñoom dañ koy jël benn yoon wallahu subhanahu wa taala alam naam naam ala kulli xaal waaw kon ah naam ala kulli xaal dafa am boru koor médecin yi na ko amatoo droit woor dañuy xool amatoo droit woor ndax ba baa ngay faju la wala amatoo droit woor sa giiru dund su dee ne feebar la bu ñuy faj day bàyyi ba faju ba pare fay nam mën a fayee su dee ne nag dañ koo condamné ne ko ah yow ko li la dal xamal ne moom woor moom mënu tuloo ko su boobaa da koy sarxeel nombre de bis yi bu nekk mu sarxeel ko ci la ceeb loolee da ngay gis koor ga da koy wàcc mbokk kon jàpp naa comme dugg nañ ca koor kon ah waaw foogoon naa miraas bi jeex na de waaw kon ñu mujj ci yow rek bismillah waaw waaw waaw waaw benn sët bu jigéen lam ak doom bu jigéen wax nañ ne doom bu jigéen bi mooy jël genn wàllu alal ji sët bu jigéen bi ñu jox ko un sixième bu doon ñaari doom yu jigéen ñooy jël deux tiers yi muy quatre mille léegi nag benn doom bu jigéen rek a fa nekk kon dañ naan doom bu jigéen jëlal trois mille mille bi waroon na nekk quatre mille nga xam ne boo amoon sœur yéen a koy bokk sët bu jigéen ba fa nekkee wala sët yu jigéen ba fa nekkee ñoom la ñuy woo jox leen ko loolu muy nekk deux tiers yi amma wax nañ ci biir wax ji ne su dee dafa am ñaari doomi jigéen moom su boobaa sët bu jigéen kenn du ko tuddati lu dul dañoo am frère boo xam ni dañuy donn de sëtu alal ja góor ñaar jigéen benn mbokk mi ngi noonu wallahu aalam wa sallallahu wa sallama ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin